balaa ngeen di ñëw ci erreur yi ngeen mën a imputer la classe politique man imputer wu ma kenn damaa bëgg. ñu delloo si xel yi est bi nekkul président en tant que garant du bon fonctionnement des institutions. Mm -hmm. est-ce que président warul woon bénir parce que il a na il a donné une bénédiction politique au parti démocratique sénégalais ñoom ñiy yëkkati ay accusations teg ko ci ndoddu ñaari juge constitutionnel ne dañ leen boobu nag dafa ce parti là doit aux Sénégalais les preuves de leurs accusations justement non parce que man man laal tu citoyen mooy ak yow euh, ces accusations sont d'une telle gravité que aujourd'hui quand même c'est pas parce que le parquet s'est saisi qu'on classe ça en perte de profit parce que moo ñu yóbbee li lépp quelque en tout cas bokk na ci du loolu rek mais bokk na ci mais li ëpp solo mais mooy li est la majorité Benno waroon na bénir la mise en place d'une commission d'enquête basée sur des suspicions de corruption ouais. concernant des membres du Conseil mais constitutionnel est-ce que président en tant que garant du bon fonctionnement des institutions est-ce que deful est waroon na leen jàppale erreur baa ngi foofu mais liñ ci rax moo garaw tey bu ñu demoon élection <coughs> dimanche bu ñu demoon élection dimanche suñu candidat gagné ni ñu ko foogee ñun ni ñu ko doon ni ñu ko doon xeexee dugg ci kon booba conseil constitutionnel bu validé suñu candidat ne moo gagné te ñuy taxaw njël benn suñu candida moo leen ger jàmm foo nga ni jàmm moo ci juddu. non est-ce ce que non est-ce loolu jàmm ci.